marhaban banque bi ay liggéeykatu santé banque seen yoxo ni ki tey jile bokk na ci li gën a fës ci xëtu yéene kaay yi enquête nañu paatuk aji soxna mi nga xamante ne daar nañ koy nemmeeku ci hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga ci bu càggante ab jafe-jafe ju rëy la fas yéene jur ci biir réew mi jëmale ko ci wàllum wér gi yaram l'observateur dëggal xibaar bi ne ñu ci ay tànku feyante yu métti la sage femme taxawee fu mu toll nii ndaxte ne nañu duñu nangu ñu daal leen sacrifié yéene kaa groupe Futurs Médias ne sage lool seen bu jëwriñ di Abdoulaye Diouf Sarr Walfadjri yéene kaay moom di ni ginnaaw bu ñu tegee loxoy sage-femme fale ci Louga ci patuk astu soxna jamono jile tembe ñu leen di jàppal tànk ñu ngi wéy di gën di bëri yéenekaay Le Quotidien moom amee loolu tiitange di xam leen ni askan wi dinañu wéy di daj ay jafe-jafe ci bërëbu fajukaay yi suñu naatango yi daal di sukkandiku ci ndajab conseil des ministres ya ni ki démb te mu jàpp ne askan wi ab jaaxle jumat sëkk lañ ci amee li ko waral moo di rek ci jamono ji nga xamante ne jafe-jafe yi di wéy di gën di feeñ ci bërëbu fajukaay yi fépp ci réew mi ci jamono jooju itam la président Macky Sall di bàkku jëmale ko ci dañ koy def fa ci wàll woowe ngir gën a yeesal bérébu fajukaay yi yéenekaay Le Quotidien ne li ciy dëgg kay moo di war nañoo wax gouvernement bi ne bu fekkente ne effort yooyee ñu wax ni daar nañ koy def ci bu fajukaay yi buñ ci tegoon suñu ay gëtt kon askan wi du daj ay jafe-jafe yu muy daj jamono jile tembe loole waral yéenekaay Le Quotidien di ñaan njëkk gouvernement bi ak liggéeykatu santé yi ngir ñu wàccee seeni bopp rax si dolli itam ñu déggu ndaxte nag bakkan kenn du ko fowe paatuk astu soxna fale ci Louga yéene kaayu laas ma ngay xam ne ni jamono jilee tembe ma ngay yëngal gouvernement bi firndeel moo dina ni ki dëmb ci ndajeb conseil des ya gouvernement bi daat nay wone bëgg-bëggam ngir yeesalaat maanaam réformer système santé gi ya Le Soleil dëggal xibaar bi ne président Macky Sall sax daa bëgg jamono jilee tembe ñu daal koy baral di maanaam ñu accélérer ni mu gën a gaawee yooyu lay réforme critique yéene kaay mel ni kuy tënk mbir mi ne ñu yile grève yu mel ni tulak màll yu ñu de santé bi daal di yéen kaay l'observateur daal di xëyi ay kaddu yu tukkee ci Barthélemy Diaz mi dalal xelu askan di xamle ni ci élection législative yu ñuy dëgmal kenn mënu koo sàcc ci mim réew moom Barthélemy Diaz di xamle ni mu di ci taarixu politique bu Sénégal ñuy jege ci li ñuy duppee cohabitation ci assemblée nationale yéen kaay bés bi le jour moom mu ngi xamle ni waa parti démocratique sénégalais daal di nañu taxaw tem di maanaam gantal wàllum rek la moo di éliminer ñu amee yéene ngir bokk ci élection yi waaye yemuñ ci ndaxte bu ñu sukkandikoo ci Témoin Quotidien ñoom waa parti démocratique sénégalais daal dinañu ñaawlu itam lu tolloo ko benn million ngi ndawu Sénégal ñi nga xamante ne mujj ñoo bindu ci liste électorale bi daal dinañuy sàkku itam ñu daal di càmbar di maanaam auditer fichier électoral bi laata ñuy woote ab manifestation bu rëy ci biir réew mi ci joojule jamono yéene kaay Le Quotidien moom mu ngi xam le ni président Macky Sall daal dinay sàkku ci àndandoom majorité présidentielle ngir ñu booloo nekk wenn say ngir ñu mën a am ndam ci législative yu ñu dëgma la naataango yi nañu ci bi ñu doon amal ci palais de la république moom président Macky Sall daal ay tegtal ay responsable coalition Benno Bokk Yaakaar yi loolee waral yéeni ka Walf Fadjri Quotidien toll ngir mën a am ndam ci élection législative yi loolee waral mu daal di soobu ci ay inauguration yu dul jeex di jubalewaat ay àndandoom di amalub campagne ngir mën a xëcc ndaw ñi ak di fexe ba rompi ay responsable ci biir opposition gi ya moom président Macky Sall daal dinay xamle bu ñu sukkandikoo ci yéeni ka libération ne yéeneen i maire yu far ci opposition bi dinañ leen fekk si ci biir majorité présidentielle bi fii ci ndakaaru sax am ci ay maire ya nga xamante ne moom président Macky Sall daat nay wax ni fii léegi fan yu néew dinañu woon ginnaaw opposition bi ñoo fekk si ko ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar jàngeen jëf